قلنا يا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل macha allah jazakallahu xayran macha allah Mouhamadul Fadil Mbacke Diop Niass macha allah. macha allah Mouhamad Fadal Mbacke Diop Thiès. Serigne Kabou xam naa ne njàngu Mouhamad Fadal mi neex gi mu neex moo tax sax yaa ngi mel ni kuy bëgg a jëndaaxee waaye nag xam naa ne programme bi xat na waaye lu mu xat-xat ñaan foofu benn minute sëñ Kabou. parce que Mouhamad njàngam mi neex na lool. xale yi fi jàng jaar yëpp seen jàng mi neex na lool te feeñ na ci liggéey bi ne xale yi nekk ci école bi teewul ñu ngi am alquran ju rafet sëñ ab élève la boole si macha allah moo tax sëñ Kab mu bëggoon laa laaj liggéey bu rafetee nii njàngale mu rafetee nii sëriñ daara yi li ñuy daj ci dongo yi bañ mën koo rafetalee nii ak alquran ju rafetee nii sunu benn jëwrin jiite moom muy Baye Talla ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér moom ñi mu àndal liggéey bi sëriñ Ka boo ma doon defal benn commentaire bu gàtt ci benn minute donte waxtu yu yaatu si njàng mu rafet mi te jaar yoon lan nga may wax bismillah waaw alhamdulilah xam naa li ñuy wax di mooy sant borom bi subhanahu wa taala bu baax ndax borom bi ñaari laaj yi laaj ay jaamam jaam yi war nañ ko bàyyi xel bu baax alaysa allahu bi kaafin abda borom bi ne na yow jaam bi ndax man yàlla doyuma la ci sa bopp ndax man yàlla mi la bind doyuma la ci sa bopp la ca teg rek mooy axakay yow yàlla mi ñu bind day war nga ñoo doy ci suñu bopp beneen barab borom bi ne awalam naa anna anzalna alayka alkitaaba yutla alayhim xanaa yéen jullit ñi du leen doy wàcce gi ma wàcce alxuraan ci yéen ngeen di ko jàng mu man leen a fare fu leen seeni wayjur mun ta fare man leen a fare fu leen alal mun ta kon alhamdulilah Seydina Omar bu ñu gisee xale yoo xam ne fi seeni at toll ñuy jàng alquran ju rafet jii lan ciy waxee rek mooy loolu tubaab naan patrimoine mondial yàlla defal na ko Sénégal te loolu alquran la buñ ko xamee te téye ko teraanga gu nekk seeni ndaw mën nañ koo terloo ci àdduna teraanga googu jaaree ci alquran waaye liñ ciy jàngee it mooy alquran moom mi ngi nii rek kalaas ak bàyyi taale gi bu doon ay at ñu ne retraité nañ waaye dañuy gis ne alxuraan amul retraité waabud rabbaka hatta yatika al yaqin da nga ciy nekk rek ba baa ngay dajeeg sa borom way juri it ñu dalal seeni xel ci xam ne alxuraan ju mel nii ku la koy defal ci sa njaboot lum la laaj jar na ko alxuraan ju nii ku la koy defal ci sa njaboot lum la laaj jar na ko kon alhamdulilah Seydina Omar ñu continuer ci dong bi ci topp jërëjëf Serigne Kabou macha allah xale yi seen alxuraan ji daa rafet lool macha allah moo tax dañoo lool ci liggéey bi donte waxtu wee xat waaye mënoon naa gën a yaatu ñoo xale bi si muy Serigne Fallou Niass bu noppee Serigne Adama Ngom mën naa waaj jege si Serigne Adama Ngom waajal jege bu noppee Serigne Fallou Diop kon sëñ ka bu joxal ñu Serigne Fallou Niass moom it fi muy jàng barkeloo foofu Serigne Fallou a'udhu billahi minash shaytanir rajim قال فما خطبكم أيها المرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صوم Fallou Niass. sadaqallahul azim. Seydina Omar ñu dem ci dong bi ci topp. dong bi ci topp mooy Serigne Adama Ngom. Serigne Adama Ngom bismillah mën ngaa yéeg bu noppee sëriñ Fallou Diouf moo ci topp Serigne Fallou Diouf mën naa waaj moom itam jege si. kon bismillah sëñ ka bu joxal ñu Serigne Adama Ngom fi muy barkeloo. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولقائه فقبضت أعمالهم فلا yawmal sëriñ wasna. Adama Ngom moom it di fedd leen rek daa boole école bi ak daara ji incha allah kon Seydina Omar ñu dem ci dong bi ci topp. jërëjëf sëñ Kabou dong bi si topp mooy sëriñ Fallou Diop. Serigne Fallou Diop bu noppee Serigne Salihou Lo moo si topp kon Serigne Salihou Lo mën naa sëñ Kabou joxal ñu Serigne Fallou Diop moom itam fi muy barkeloo. Sëriñ Fallu a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim wadkuru llaaha fi ayyaamin ma'duudaat bismillaah a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim wadkuru llaaha fi macha allah baax na sëñ Fallou. sadaqallahul kon ñu dem ci dong bi ci topp Seydina Mohamed Diaw. Seydina Mohamed. su paree Serigne Saliou Lo mën naa jege si. Seydina Mohamed Diaw. boo yéegee nga jàngal nu a'uudu billahi min ash-shaytaani فما كان جواب قومه بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما macha allah baax na Seydina Mohamed. ñu jox Seydina war wax ñu ko ci topp. Serigne Salihu Lo. bismillah bu noppee Mohamed Jibi Gaye mën naa waaj moom itam. bismillah sëñ Kaabu joxal ñu Serigne Salihu fi muy jàng. Serigne Salihu. aoudu billahi min acheytaani rajim. لتبلون في أموالكم وأنفسكم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون منكم ومن allah baax na Mouhamed Jibi. macha allah Serigne Saliou Lo moom it ñu ngi xamal ne daa boole école bi ak daara ji. kon ñu dem ci dong bi ci topp sëñ Omar. dong bi si topp mooy Mouhamed Jibi Gaye bismillah bu noppee Mouhamed Fadal Mbacke moo si topp. kon sëñ Kaabu Mouhamed Jibi Gaye moom borom Pastef la mi ngi nii toog di la xaar jox ko rek fi muy jàng bismillah. bismillah Mouhamed Jibi. a'uudu billahi minash shaytaani rajiim. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا

macha allah baax na Mouhamed Jibi xam naa nag moom ñëpp bëggoon nga continuer ndax at yu tuuti yeeg fi ngay jàng ci alquran waaye alhamdulilah photographe bul ñu tardel ngir yàlla boo bëggee ku toog rek ñu foto ko day yàq liggéey bi na wàcc mu gaaw ñu dem ci dongo bi ci topp Seydina Omar dongo bi si topp mooy Mohamad Fadal Mbacke kon ki tari ba pare rek mën naa wàcc lu muy seq ak ay waajuram tam ñu seq koog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 وَبِقَدَرٍ macha allah baax na sëñ Ahmadou Mouhamadul Fadil kon Seydina Omar ñu dem ci bi ci topp. jërëjëf sëñ Kabou dong bi si topp mooy Cheikh Ahmad Bamba Gueye mën naa yéeg Mouhamad Fadil Mbacke taxawal ne sa bàjjen yi siyaare la te nga foto woo macha allah sëñ Kabou mel na ni bàjjen yi nag dañoo xëy seegutoon waaye xëy si nañ léegi. man kay li ma bëggoon a laaj bàjjenu Ndakaaru yi ak bàjjenu Touba ñu siy gën a teel a xëy loolu ab laaj la waaye xale bi si topp daal mooy Cheikh Ahmadou Bamba Gueye bu noppee bàyyi Seex Jóob mën naa waaj moo si topp jërëjëf ñu Seex Ahmad Bamba fi muy jàng Seex Ahmad Bamba a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim wa waa'adnaa Muusaa thalaathiina layla bismillah macha allah Cheikh Ahmadou Bamba macha allah baax na jërëjëf yéen Baye Cheikh Diop mën naa yéeg su paree Mahmadul Fadil Mbacke topp ci Baye Cheikh Diop. Baye Cheikh boo yéegee aoudu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا macha allah Baye Cheikh Diop. sadaqallahul azim. kon Seydina war nga wax ñu ki ci topp. ki ci topp mooy Mohamed Fadel Mbacke numéro 2 Mohamed Fadel Mbacke 2 bismillah bu noppee Mohamed Fall moo ci topp Mohamed Fall mën naa waaj Cees Serigne Saliou Guèye numéro 1 moom itam mën naa waaj bismillah sëñ Kabou Mohamed Fadel Mbacke numéro 2 joxal ko fi muy jàngi. لتجدن أشد الناس عداوة سلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للذين sha allah baax na sadaqallaahu Mahmadul Fadil jërëjëf Mbàkke ñu dem ci dong bi ci topp Seydina Omar Mohamed Fall bismillah bu noppee Serigne Saliou Guèye moo si topp kon Mohamed Fall moom itam joxal na ko fi muy barkeloo Mohamed Fall aoudu billahi min alsheytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alif lam تلك آيات الكتاب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم macha allah Mouhamed Fall baax na de. sadaqallahul azim. moom it ñu fàttali ne ñi boole école bi ak daara ji ci la bokk. ñu dem ci dong bi ñu topp Seydina Omar. jërëjëf Mohamed wàccal fee photo booleeg say bàjjan siyaare la mel liggéey toog na kon sëñ Kaabu joxal ñu ko moom itam bërëb bi muy barkeloo. Sëriñ Saliou. aoudu billahi min acheytaani rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو loro macha baax na sëñ Saliou. sadaqallaahul aziim. ñu dem ci ko ci topp. ki si topp te mooy ki si des si ñi doon gunge mooy Pape Bounama Badiane. Pape Bounama Badiane moo si topp te moo des si ñi doon gunge. mu mel ni bu jeexee bu jeexee dañuy woo Soxna Fat Ndiaye di wéttalu sëriñ bàcc mi nga xam ne jëwriñ la ci daara ji. te moo ko leewoon sa daara jee sa jaaj ji te téye leen ko téyele bu rafet yàlla dogaloon mu tari woon alxuraan tari bu rafet war a ñëw nag yàlla dogal mu ñëw bokkaat ci liggéey bi war a ñëw bokk gunge ñi nga xam ne ñoom ñoo mokkal te moo leen di ubbil kon bu naa ma bi nga xam ne ñoom ñoo doon gunge fi la yem ci ñi mokkalut waaye soxna Fat Ndiaye mi nga xam ne moo siy topp mooy ubbil ñi nga xam ne ñoo mokkal te moom jàjj la mokkale woon yàlla dogal mu ñëw nag donaat wéttal ci kër gi bokku ci liggéey bi war a feeñal yéeneem kon sëñ kàbbu soxna Faat Njaay moom itam nag ah des koy bàyyi xel nag ndax dong la woon boo xam ne dafa mokkale woon fay jàjj ñu téyal ko téyal bu rafet yàlla dogal léegi mu ñëw bokk ci daara ji ci njaatige yi ci jëwrin yi waa ndax mooy wéttalu sëriñ bàcc mi nga xam ne moom si ñuy liggéey liggéey bu rafet bii la bokk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 سمو نوم أعجاز نخل خاوية ما شاء الله baaxna Pape Bounama Badiane sadaqallahul aziim kon bismillah soxna Fatou Ndiaye mën naa ñëw moom it niñ ko waxe woon rek ca daara ju mag ji nga xam ne moo jur daara ji fala la mokkale alquran yàlla dogal mu jógee fa sëy si ci biir daara ji ñu ne ko kaay barkeelu rek ngir nga wan sa morom yi ne leen néegub sëy warta dox diggante jigéen mu fëtt alxuraan ji mokkaloon kon soxna Faati bismillah yàlla dogal na mokkal na alxuraan borom këram mokkal na macha allah a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wadhkurullaha fi فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن يسخرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ما شاء الله soxna si sadaqallahu al-azim waaw kay waaw kumba ma sha Allah yàlla fay aw yiw dëgg yàlla nooy wax jullit ñi ne leen mokkal alxuraan li ci gën a tuuti mooy amub diplôme ab jullit ak mokkalam da ko war a sàmm ba buy dem yowmal xiyaam man koy yóbbaale kon alhamdulilah soxna si waaw kumba wax dëgg yàlla mokkalee ci daara sëy si waat ci biir daara àndaat ak waa daara ji doon ab donga alhamdulilah kon lii wane ne rek bàyyi taali mi ngi liggéey liggéey bu rëy wax dëgg yàlla da ngay fekk njaboot gi doon ay ingénieur nekk ci seeni waaye saa bu julli jotee koo ci soxla rek ne ko demal ci kanam mu tari alxuraan ju leer fekk doomam mu toog ca hôpital ba di seet ay malaat waaye bu waxtu julli jotee mbaa nga soxla ku la jàngal alxuraan fa mu toog lay toog loo bëgg mu tari la ko ci alxuraan loolu mooy liggéey bi bokki julli di bu rikk rek bu di polomi adduna yi dox suñu digganteek ñu jàngal suñu njaboot ñàngum diine jaru ko jaru ko mën nañoo boole ñàngum diine mi ak ñàngum adduna Serigne Saliou Gueye mi wàcc léegi jàng alxuraan ju rafet ci école bi la nekk waaye waxtu yi muy desal moom lañ ko jagleel muy dem ci daara ji teewut rek mi ngi jàng alxuraan ju rafet kon nu dem ci gone yi ñu andil ñu ay waay incha allahu ñuy door ñëw nag suñu fukki jàmbaar yi nga xam ne ñoo sol yére yu weex yi ak mbaxana yu jekk yi ñooy fukki gone yi nga xam ne ñoo mokkale alxuraan ren ci daara ji kon gone yi nga xam ne ñoo war a def way